aouzu billahi min asaytaani rajim wa inniya uhisuha bika wa suriyataha min asaytaani rajimi rabbi aouzu bika min amasati sayatini wa aouzu bika rabbi an yahdurun man zanna xayra allahi yuxni aw yadur fasaaka fi daareni so kaddin wa dur wiqayatul bika wa bil qur'ani wa bi rasulillahi fil asmaani mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw ba ñu sant yàlla sunu borom bi subhanahu wa taala jalla jalaaluhu ñoo ngi sant ngën gi mbindeef te julli ci moom yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mbokk yi di nuyu waa senegal rawatina sunu kilifa diine yi nga xam ne ñoo bokk réew mi macha allah ñu ngi leen di ñaanal jàmm yu sax dàkk ci ñoom ànd ak tawféex naka noonu di nuyu suñu kilifa aada yi nga xam ne ñoo bokk réew mi waaye di ziare ak di ndokkeel mboolem téléspectateur boo xam ne yaa ngi ñuy seetaan ci suñu seen bu mag bii di alxuraan TV di nuyu waa Sénégal waaye di nuyu waa bitim réew di dalalaat sang bu tedd koo xam ne mbokk yi kenn dootu leen ko présenté muy a Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan Cheikh Ibrahima Ndiaye baabullahi buntu yàlla bi Cheikh Ibrahima ñu ngi lay nuyu di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Seydina Ousmane ñu ngi lay fay nuyoo ñu ngi nuyu kilifa yi nekk ci réew mi yëpp yu diine yi ak yu aada yi. ñu ngi nuyu mboolem téléspectateurs yi nga xam ni ñu ngi ñuy topp fii ci réew mi rawatina nag waa bitim réew. ndax ñi ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax ñi ngi ñuy déglu ñu ngi jëfandikoo secret yi fa tabarakallahu ñu ñu ngi leen di bàyyi xel jërëjëf kon ñu ngi yëkkati nuyoo bu jotale di ko nuyu mboolem senegal yi ak fu ñu mën nekk ci àdduna bi di leen wax ni bisimilah. bisimilah alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi bu leen fàtte ne jotaay bii mooy jotaay yu waaye mooy jotaay yu mag ñi jotaay yu sunna waaye di jotaay bi nga xam ne ci li ñu gëstu. mbooleem asraar yi nga xam ne moom la yàlla wàcce ngir ñu di ko jariñoo Cheikh Ibrahima tey ñu bëggoon waxtaan ak yow waxtaan wu am solo muy secret fatihatul kitab njariñ yi ci nekk ak li tax yàlla wàcce ko ngir ñu di ci mën a jariñu waaye di ci faj aajo Cheikh Ibrahima fatihatul kitab Seydina Ousmane ñi ngi waxtaanee loo xam ni képp ku ñuy déglu li mu war a njëkk a def mooy wut big ak fooy toog baat par baat mu koy bind ci débat bi ñuy waxtaanee ba pare ndax tey débat bi du génn njariñ doomu aadama yépp boo boolee seen njariñ ñoom fi ñu ko dëxëñ fa dugg tey muy faatixatul kitaab faatixa nag neexuta waxtaanee ndax bari na xasida gooy jàng fekk na jëmmi xasida ga ñi ngi ko dëxañ ci biir faatixatul kitaab uh-huh. bari na saaru alxuraan wooy jàng fekk na jëmmi saar wa ngi ko génne ci biir faatixatul bari na ñaan gooy ñaan fekk na jëmmi ñaan nga ma nga génnee ci biir faatixatul kitaab moom waaw faatixatul kitaab wax nañ ni alxuraan bu génnee faatixa teg nee man ngaa waxaat ni mboolem alxuraan jépp mi ngi génne ci fatiha moo tax ñu koy woowee umul kitaab uh-huh. fatihatul kitaab mën nañ ni ñi feebar ñépp mooy garab gi leen di faj feebar yi gën a naq naqaree faj fatiha da koy faj ak feebar bu mu mën a doon mooy feebar yi nga xam ne moo xew ci jamono lu mel ni cancer nga xam ni tën a ñépp fu ne fatiha da koy faj ndax cancer dañoo wax ne moom garab mu amagul fatihaay garabam maa la wax loolu man sëñ Ndiaye nagaa yi bind loolu moo tax ma ne nañ indi big yi bind. allahu dinaa leen jox secret yoo xam ne mos ñu koo dégg ci nopp. Fatiha mboolem luy dangar ju nekk ci biir yaramu doomu aadama na koy génne. saar alxuraan yëpp mën nga koo jël teg bu jaan mattoon kenn wala jiit matt wala li paaxoon matt wala ñu sànni la tooke ba sa yaram yu commencé nëpp ci faatihatul kitaab lañ lay faj mu dañ. allahu akbar fatihatul kitab mooy faj biir góomi biir yi nekk ci biir yaramu nit lu mel ni feebar dafa am ay façon dafa am feebar yoo xam ne day feeñ ci kawab der am feebar yoo xam ne day nekk ci biir yaram ma ni feebar yi nekk ci biir yëpp fatiha moo koy faj waaye feebar yi génn ci kaw yëpp fatiha moo koy faj naka nga ci naka nga ci faje feebar. voilà ok loolu nag waaw. gis nga mag ñi daan faj ci réew mi. Uh-huh. garab guñ la mus jox dañ ci boole ñaar. yi mhm. yëpp ay complément la rek. garab boo ko dee jox nit faw nga bind faatiha boole ci biir waaye faw nga boole ca ndox ndox. ndox ndox. Mhm. moo tax suñ borom ni wa ja'alna min maa'i kulli shay'in qayy afala yu'minuun nit ñi xanaa xamuñu ni ñoom man lépp maa ngi ko tëgg ci ndox. Mhm. waaye nit ñi. xanaa xamuñu ne alxuraan ji ñuy jëfandikoo alxuraan jëpp maa ngi ko tëgg ci fatiha fatiha mooy sirru sirri ila naasi uhuh. secret secret bi yor njëriñu nit ñi mooy fatiha sirru sirru ila naasi sirru uhuh. sirri uhuh. ila war a doxal nit ñi mooy fatiha ci allahu akbar lépp lu yàlla di defloo doomu aadama lam ca jiital mooy bismillah bisimilah ñu ngi ko génnee ci biir fatiha bisimilahi nag mooy jàpp ismullahi ismullahi mooy jàpp tur yàlla tur yàlla mooy jàpp yàlla mhm. kon fatiha génnul yàlla allahu akbar mhm. aalim yi nga xam ni ñoo raw ci xarnu bi te xarnu bu nekk ñoo cee raw mooy borom xam-xam yi nga xam ne ñoo la ñuy woowee awliya yi nga xam ni Sëriñ Tuubaa nee na ñooy waa mablaxar rijaal fa góor yàlla yem ña fa ne ñoom fatiha la ñuy jëfandikoo fatihatul kitaab boo ko dee werd lu bari néew yu tëdd ci armeel nga xam ne dee nañ bu yàgg nee nañ koy sikkar bu duggee ci armeel néew bu am soxla dina ko wax te dina ko dégg te bu génnee wax ko allahu akbar di néew diw nee na nañ ko defal ñaan naan ñaan sàngam maqaama moom ak daraja jooju mi ngi koy jële ci sikkar fatiha ca jamonoy mag ña képp ku musa saxal dog boo xam ni guddi gu jot dinga nga werd junniy faatiha soo xëyee ñoom dañ lay xàmmee waaw dañ naan la ñun de suñu wilaaye gi bu doon ndox mel ni naan nga ko ndax dañ dañoo tëbb ci sa biir nga xamante ni si nii amul kenn kuñ mos a gis ci nit yàlla yi muy werd faatiha am ku ko jiitu faw yaay jiitu ñëpp kon faatiha sidna Usmaan ci première question bi li ma la mën a tënkal tey ñi ngi waxtaanee. àdduna uh-huh. bi ci liñ ko lal. Uh-huh. bu doon nit ñi dañuy wax ni ci kaw suuf la ñuy dox. Uh-huh. tey Fatiha bu ñu doon wax mbirum nit dañuy wax ni mooy base bi tee nit ñi. nga xam ne àgg na ci sax tey euh, ku jokkoo woon ak yow aajo ju mën a am moo xam mu nekk ci réew mi waaye moo xam mu nekk bitim réew kon tey di nga ko mën a liggéeyal euh, ci ci ci secret Fatiha ndax day mel ni da ci am ay ay yoon ak ay buntu yoo xam ne xëy na bokkuñu maanaam secret bu la nit jox mm-hmm. secret ba mu nga juddoo ci fatiha boo xasee ba peeg fatihatul kitab secret yi doomu aadama yépp yor ci li ñuy woo dañuy wax naan connexion fu muy jóge ci satellite bi mm-hmm. satellite bi mooy mars lépp door a dox YouTube amul njariñ email amul njariñ fii ak bi doxul ñoom duñ dox base de données yi nag ci fi muy jóge buutu secret bi mooy fatiha allahu akbar nga xam ne fatiha boo ko doon tënk fatiha kanzul azam xam nga mooy lan déedéet secret fatiha la <laughs> la ilaha illallah <laughs> kanzul azam dama nga laaj ko tijaan yi xam nga mooy lan déedéet moom lañ bëgg nga yooyu sax daa xaw a xóot waaye waaye bëgg nañ nga nga mboolem ku ñuy seetaan eh, mu mën a jariñoo waxtaan bii ñuy waxtaan ak yow xam nga salaatu naar yu gii ngay dégg muy def bruit ci mhm. faatixa lañ ko tëgg muy allahumma salli salaatan kaamilatan waaw ci faatixa la génnee mhm. qul nga xamante ni si nii mooy moom qul wallahu ahad wax nañ ni ci la ñuy ràmm nit ci la ñuy fiddaawu doomu aadama qul wallahu ahad ci faatixa la génnee naka la ciy génnee. waaw naka naka la ciy génnee gis nga yàlla dafa ni jaam ñi yéen ñëpp ànd leen jëm ci man yonent bi waxal jaam ñi ni leen yàlla kenn rekk la du ñaar du ñett du ñeent kenn rekk la kooku nag seen aajo jépp nañ ko jëme ci moom mooy ihdina mooy xul wallahu ahad allahu samad allahu samad xam nga nu muy firi dëgg dëgg dëgg samad mhm. mooy aajoy jaam ñépp ne leen boole ko delloo si ma ko man yàlla suñu borom man yàlla mi nga xam ne may axat allahu aajo ji maa leen ko teg natt yi mhm. ñoom maa leen bind fi ñu nekk maa ko bind la leen di jariñ maa koy indi mhm. leen di lor maa koy indi nañ boole loolu lépp suñ bëggee noppalu indi waatal ma ko loolu nag fu mu xaj mooy ci allahu samad baatub as-samadu ñaari tur yooyu moom suñ tubaa ko créé ci nit ci àdduna nit ku tudd samat ak nit ku tudd ahad muy suñ abdu ahad xullaaw uh-huh. ahad uh-huh. suñ abdu samat uh-huh. allahu samat ma ne ñaari daraja yooyu moom suñ tubaa ko dóor ci réew mi amul keneen koo mën a génne mu génne woon tur yooyu niñ daaw tudd noon <laughs> allahu akbar <laughs> macha allah yaa ngi dégg maa ngi lay dégg waaw mhm. waaye ci fatiha lañ nekk tey ndax ñu génn fatiha mhm. ndax nit ñi ñooy laaj ngëneel yi ah, nit ñi ñooy laaj ngëneel yi waaw mhm. ndeysaan bokk na ci ngëneel yi fatiha ki nga xam ne da koy sikkar téeméeri yoon par guddi dina dem ba ci biiru dundam yàlla dina ko jagleel moom mu yor wërsëg wu mën a dundal téeméeri nit ci dundam bu dee ko saxal junni yoon par guddi ci giir biiru dundam suñ borom dina ko dem ba tàggatal ko wërsëgu junni nit mu attan ko ci ak dundam faatixa boo bëggee gudd fan moom ngay werd boo koy werd doo gaaw a dee faatixa boo bëggee dund saa feebar saa nga am benn soxla moom ngay liggéey boo ko dee dund werd faatixa doo feebar doo bari ay soxla doo am benn soxla ci kenn te lépp luy sa aajo suñ borom dina ko tàggat loola moo lay fekk si waaye yow dootoo sonn ci dara allahu faatixatul kitaab fi ne boo bëggoon a yorub dëkk waxuma yor kër kër dafa tuuti ci faatixa boo bëggoon a yor dëkk lum seen wërsëg booy werd faatixa yàlla tabba tabbal wërsëg woowu say loxo nga yor ko ab dëkk ab dëkk kon fatiha weesu na kër waaw weesu na kër <laughs> nee nañ bu dee danga ragal ni boo dee sa barzaq doo doo doo doo ko wóolu maanaam da ragal ni boo dee barzaq day métti ci yow malaayika yay laaj ak yooyu yëpp dafay daje doon lu métti ci yow lu tar mu ne na ngay werd fatihatul kitab boo dee sa barzaq waxuma la yow miñ suul ci armeel yi waaye ña nga fekk ci armeel yëpp di nga mën rammaale ci yiw la ñuy nekk ba keroog yàlla di taxawal bis penc di leen woo kenn du ci tiit kenn du ci raf ci sa barke yow mi nga xam ni yaa daan wedd fatiha ñu suul la ci suuf soosu te lépp mi ngi basé wu ci darajey fatihatul kitab fatiha mbooloo mi nga xamante ni si nii koo xam ne day liggéey fatihatul kitab di ko si kër junni yoon mbooloo mu mu jullee donte imam ba doon jiite julleem nga yàqu na julli googee suñ borom dina ko baaxal ci barket ki nga xam ni moo nekk ci biir mbooloo mi léegi sëñ bi baal ma doguma la ndax fi nga toll baax na lool am na solo waaye dafa am ndax euh, dafa am ñoo xam ne seen seen emploi de temps. Mhm. maanaam xat na mu mel ni ñi nga xam dañuy xëy fajaru di liggéey yi tey ñooñu euh, bu ñu wàccee dañuy sonn léegi bu dee ki nga xam ne da ciy wird junni bu dee ki nga xam ne moom bëgg naa am njariñul kay wird junni la mu am. waaye moom xëy na temps matiwu ko kooku euh, yan yan wird nga koy baaxee ci fatihatul kitaab. fatihatul kitaab am na dogu kun. waaw dogu kun. mooy soixante-dix allahu akbar. am na sett set ñi nga xamante ni si ni dañuy dañuy xëy mhm. fajaru jëm ci bureau wala dem ci dara boo jullee ba def yi nga def yëpp ba pare boo duggee sa oto bala ngaa roof caabi yi yow dugalal fatiha d'abord tàllal sa loxo jàng juróom-ñaari fatiha raaj sa kanam départ baa gé ba sa toog bala ngaa def dara tàllal say loxo jàng juróom-ñaari xuloo la waxat raaj sa xar kanam départ foo ko xas di def di fa dugg di nga mujj ñoom ñëpp yaay doon seen kilifa doon sam njàng daan néew te itam journée boobu yow doo ci doo ci am négatif. waaw ah, ak ak ak ni mu yombee. waaw mooy mooy code sept xam nga chiffre sept ci lañ tënk àdduna douze. moo mooy mooy mooy doxal doxal jamono ji ndax dañuy jël laa ilaha illallah douze araf muhammad rasulullah douze arab muy doxal vingt quatre heures yi <laughs> allahu akbar chiffre sept ci lañ ñuy namee namee grade yi macha allah chiffre huit na neuf moom la wàllu yuy xëccoo ndax ca la seen seen seen bagage yi nekk kon neuf lu doy waar la moom ah, lu doy la waar la fi mu ne nii <laughs> maa ngi la doon wax ay secret tey waaw ndax waaw kay waaw kay sang bi ndax maa ngi dégg man baat yooyu maa ngi koy soog a dégg tamtakata jay ab secret la allahu taxfaluusin ab secret la kamantala min kamantala yaalin ab secret la kadra yuusin nag moom dama ko jox gaa yi ndax ndax Sénégal gii ni ma ko gisee noggatante gi ni mu méttee mhm. boo leen joxoon kadra yuusin kenn ku nekk dina nangu xaalisu moroom <laughs> yaa ngi dégg ngi dégg jaamix bi nga xam ne moom la gaa yi seet mhm. nga xam ne mag ñi boo leen waxoon leen maa ngi ak secret jal mag fi du jal muusin mën nañoo jaay seeni alal ngir jënd ko ci yow secret boobu day dox te ci faatixa lañ ko tëgg moom lañ moom lañ tëgg ci allahu yaa jaamixu ba tey rek génne goo faatixa déedéet nee naa la faatixa mooy bit bi yaa ngi dégg bu doon te ni tey terrain football joueurs yeeg bal entraîneur yaag ñoom ñëpp fañ lañ dugal mooy nu muy tudd stade bi. Uh-huh. Fatiha mooy stade ba. ba mu duñ am fu ñu footballee. nga xam ne balaa dara dara xew moom faaw ñu am stade ba pare. <laughs> xam moo téye gazon bi. Uh-huh. moo moo tax ñu mën a football moo tax lépp Fatiha tey dama lay wax de moo la ko doon tënkal ni mel lépp ngi ci biiram moom mooy stade bi. gars yi nekk ci biir du joueur rek waaye moom mooy stade bi ma amee problème rek lépp am problème base de yi ci satellite bi lay jóge waaye nee naa la Fatiha mooy surul Qur'an. alxuraan sirru bi mooy fatiha léegi bu dee ki nga xam ne yooyu yëpp moom munu ko ci waaye xëy na bëgg na nga liggéeyal ko ci secret boo xam ne daf koy sangoo wala lu mel ne jaaro wala lu mel ne ndomba mu di ko takk ak yu mel noonu ki nga xam ne moom wird daf ko daf ko daf ko jafe Seydina Ousmane xanaa kii kii soxla ndomb ak fatiha lu mu bëgg ci adduna bi xanaa bëggul ñëw rek dundu def comme gaa yi dem wala ah, bëgg ah, leneen waaw <laughs> fatiha fatiha dëgg-dëgg fatiha waaw bi nga xamante ni si daa ànd ak sirru Muhammad Rasulullahi nga liggéeyal ci nit ak ndom ba jox ko kooku kooku kooku sëñ bi xajul ci gaay kooku li muy àndal ci wilaya du xaj ci gaay kooku kooku kooku jom naa koo liggéeyal nit am na jaaru fatiha boo xam ne rek fi mu mhm. boo ko tëggoon ba jox ko nit mbiram wéy na waaw fii ci adduna day jiitu nit ñi àllaaxira day jiitu nit ñi. te mu mel ne mu mel ne li ci gën a yéeme mooy jaaro yi yow da nga jël sa temps de defaral ko sa bopp. waaw am na jaaro boo xamante ne xam nga tey jaaro bii ma takk rek. ismul azam yëpp a ngi tënku ci biir bii. moom jaaro bii waaw am na jaaro boo xamante ni si nii jëmmi basmala la mooy bisimilahi rahmaani rahim waaye am na jaaro boo xam ne jëmmi fatiha lañ koy liggéey fatiha nag dafa am sew-sew bu nekk ci biir boo xam ne moom la ñuy wax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu googu nag gaa yi fi mu ne ñu bëri yaa ngi dégg ñu lay wax si sekkarab iyyaka na'budu waaye gaay yi àgguñ ci dëgg-dëgg sekkara ba de sekkara boobu boo ciy liggéey nit du genn 24 heures boo ko werlee nit bu xëy suba gis résultat kooku noonu a doxee waaye fatiha am na yoonu xalwatu te bépp nit bu am aajo bu mu mën a doon ak aajo ba toll boo yoree fatihatul kitab dugg ci xalwa garanti nañ xalwa googu ne li ngay ñaan yàlla da koy nangu yàlla du gàntal fatiha. ak aajo ju nu mu a doon gis nga julli. Uh-huh. gis mu toll. ci yàlla. Uh-huh. nga yàlla dafa wax ni doomu aadama bés bu doonee mu kàllaf li ko njëkk. ka war moom mooy mu wéral ngëmam ci man topp na ngëm googee mu topp farata yi nga xamante ni moo topp ci ngëm gi te man koo jariñ ñu ni ko faratay nit yan moo ci njëkk yàlla suñu borom mu ni kaax kaami salaat nit bu xasee bañ ni ko mësër nga bàkkaar yaa ngi ñëw loo defati yàlla da lay topp mu ni na dem jéem a tegtalu ci julli julli googee yonent bi nee na bu nit taxawoon kàbbar di julli suba ñu ne mu ni ja mu jàng kaamil bi yépp fàtte fàtte julli nga baaxul ñu ni ko ah mu ne mu jàng mennum fatiha fàtte kaamil bi yëpp julli nga baax na ah saa yi ah, jox ma loxo waaw kon kon kon fatiha du du du lu ndaw ah, déggoo ma ndaw sëriñ bi dama ni mm-hmm. <laughs> sëriñ na ma déglu ma waay <laughs> dama ni yonent bi nee na mm-hmm. bu nit kàbbaree di julli fajar jàng kaamil bi yëpp fàtte fatiha fàtte fatiha julli ga baaxul jàng fàtte fatiha fàtte kaamil ba kaamil yëpp julli ga baax na. ah ilaha kon loolu li muy tegtale mooy fatiha daal euh, du du ndaw. li muy tegtale mooy fatiha mooy garanti kaamil bi. allahu akbar. doom buñ ko dee seet yaay mu taxawul bu yaay ja taxawee doom ja du réer. si <laughs> bi tey yaa ngi leeral lu am solo. loo xam ne askan wi yëpp. ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko yittewoo muy secret fatiha xam naa secret fatiha boobu ba tey sax. am na benn nitu yàlla bu ñuy wax maam Khalifa ñas demal ko la nga laajte ko. naar ak pël ak rek amul ko ko mos a ñime ci réew mi secret fatiha la yoroon. allahu yoroon. maam Khalifa Niass. maam Khalifa Niass. secret fatihatul kitab la yoroon mooy waajuru Sidi Lamine ñas ak Ahmed Khalifa Niass daana def ci fatiha loo xam ni naar yi daq ak jàng ci àdduna dëppoo woon nañ ci ni maam Khalifa mii bu ay malayka jàngul nit nit jàngulu ko ndax jaaxal gum leen jaaxal Ahmed Khalifa Niass nag xam yor na koom yoru ko waaye baayam yoroon na fatihatul kitab boo xam ni kum ci munta fal ci adduna amul kum ci munta foll ci àdduna amul muy nitu saayir ak nitu bàtin laa ilaaha illallah demoon na ba góor yàlla yépp kenn ku ci nekk daa nga ko tallal loxo di ko def loolu loo xam ne ci fatiha gi mu yor la koy def di ko ci dindi léegi fatiha day doon euh, secret boo xam nit ki da koy da koy da koy jalbu maanaam da koy da koy topp da ko ba mu wuyu ko Euh, wala wala wala na naka naka naka la kii naka la ci nit ki amee barke bu toll noonu. Fatiha nag ñu nga gis ñu wax ñëpp seen wax liñ bëgg a leeral mooy Fatiha dañuy wër wax ji. ok ok. xam nga départ bi naa la bari na xasida liir ci Fatiha rek lay wax bari na te saa jàng Fatiha rek lay leeral bari na mbóot yoo bëgg dugg ci biir da duggul ci biir Fatiha moo tax xamoo mbóot yooyu. dama ni xat nu walit bañ koy jox kaasu posen ba. nga xam da ko war naan teg kaas bi sedd guyu sortu fatiha rek la jàng naan ko teg kaas bi ni cocc coccoral dara dal ko <laughs> te dafa waroon a faatu moom automatiquement waaw bi boo wéetoon yow mii yor naa fatiha boo xam ne bi ma la ko joxee joxal la ñaari baat yi nga ciy teg ndox suuf bi nga xam ni wax nañ ne bu mattee nit veine bi munta def douze minutes ci moom te waa ji faatuwul ndax deret ji day way su mattoon nit nga jàng faatixa raay ci boole ko baat yooyu raay ci jeex na day wàccal boppam kon faatixa li li muy mayee ci xéwal li ki nekk ci kaaraange kon moo ëpp doole laa ilaaha nit ki boo ko aaree ci sekkarab faatixa kenn ku ko mën a liggéeyati am ci kaw suuf si liggéey dootu ko jàpp allahu akbar <laughs> faatixa sekkara bi dëgg boo ko jëfandikoo yow mi ko jëfandikoo nga amaat doom joo xam ne fekkoon na nga jëfandikoo faat doom jooj sax euh, ak njaba ko jàpp tooke lu mu bon bon bon bon bu nekk ci biiru yaram am na nooy liggéey faatixa dugal ko ci biir yaram woowu noonu tooke ci day dañ moo tax ma ne day faj góomu biir day faj góomu biti ba tuddal la ci ay feebar yoo xam ni nit ñi nee amuñu solution solution baa nga ca faatixa bu yegg te itam naa la jox lenn nit ku tëdd feebar lu tëddaay ba yàgg yàgg bu dajee borom kurus gu xam see kër Fatiha duñ génn juróom-ñaari fan te jugul. juróom-ñaari fan. waaw nit ku amee bor. lu bor ba bari bari lu bor ba rëy rëy bu dajee ko am faat see kër Fatiha bu ko sikkaralee juróom-ñaari fan ñu fay ko bor bi. mu tax réew mi ñii fi état bi yoreel xaalis ñëpp bu leen neexoon mu fay leen seen xaalis far force. te te doo leen jox ñuy sangu loolu day nekk loo xam ne yow. investisseur boo xam nañ ko bëgg a génn ci réew mi. maanaam par exemple comme ni gars yi daan def gàddu njëgg bi jëm ci dëkk gars yi nii duñ àgg sekkar fatiha rek la leen daan jox moom la ñuy doxee àgg ci dëkk ba njaay ma jeex ñu wàññeeku su leen kenn mën mën a ci yoon wi waaw Fatiha nga toll ak moom foo xam ne lenn lu la mën a lor du am ci jàmm Sidna Ousmane. alhamdulilah lenn lu la mën a lor du am ci jàmm ñi kon mbokk yi ñoo ko déggandoo muy secret Fatihatul Kitab bi nga xam ne askanu Sénégal yëpp ñoo ko doon laajte waaye di ko gëstu bëgg a xam lu mu doon ndax njariñ yi bari na lool te euh, musuñoo dégg ko ko wane nii mu ko nii ko Cheikh Ibrahima euh, euh, Ndiaye alquran wane borom baabullahi waaye Cheikh Ibrahima kon day mel ne lii ñu amoon ci waxtu nag mu ngi toll ci jeex Cheikh Ibrahima sa kàddu yu mujj am na nag laaj bu ma la bëgg a laaj mm-hmm. ndax kan bi sa wet mm-hmm. damaa gis ne nekkul ne sax saa su nekk rek nga ko yore mhm. waaye heure boo waree waxtaan secret fatixatul kitaab rek danga nga koy jël teg ci sa wet kaan bii mooy lan si Ibrahima loolu nag sama laaju bopp la waaw xam nga kaan ah, mhm. ñu bari dañuy yor bant rek di ci dox te màggatuñ defuñu dara waaye xam nga ne yent yàlla muusa yetam mi yoru ko rek pour bëgg koo yor di ci dox yent yàlla Moussa yet wax yor ko woon noonu rek ngir mu yetu kese kese bu mu war a doxantu rek. mu gis la woon ci moom boo xam ni suñ boroom ma koy jox ndigal loolu di dox. kan bii boo ko ubbee ci biir daa daam yuñ ci sol. ah kon du rek bant boo xam ne da ngay jën di ko doxantoo ko def ay yëf day ubbeeku. ñu sol ba mu fees tëj. Ah, waaw waaw day <laughs> la wan nag. man nag man nag bant laa ko tegoon boo xam dañ koo décorer rek nii. dama koo dama koo sarse ba mu fees ay baga bagage batin. ay yëf yëfaan. waaw ay yëf yëfaan. waaw. sa kër kun fayakun biir la ne. alhamdulilah mos naa koo dóor fii nit guddi. fi mu tëdd la tëdd bët set mënut dem. allahu akbar kan bi ko dóor ndànk rek. xam na am na nu ma ko doon doone mën naa mën nañoo ko fekk. kon moom doonut loo xam da nga koy mën a liggéeyal nit ki muy doxantoog moom. kii sama arme bopp la man. Ah. daa am yoo xam ne nag boo ko gisee bu ko di laaj. waaw waaye nit ñi dañ koy faral di laaj léeg-léeg bu ñu ko gisee ci image yi waaw te day mel na yor ay façon façon sax waaye. waaw waaw waaye moom kéemaan la. yëpp daal daa ay ay la. xam nga ab sëriñ daal du bàyyi boppam noonu. <laughs> waaw ku ngay yaakaar faaw nga am foo wéeru. jërëjëf Cheikh Ibrahima Ndiaye kon mbokk yi bu leen fàttali ne kii ñu àndaloon tey mooy Cheikh Ibrahima Ndiaye alquranul karim Cheikh Ibrahima Ndiaye baabulahi di buntub yàlla waxoon naa leen ne. kàddu yooyu nekkul ne rek dañ ko ko bëgg woowee di ko ko woowee waaye nit ñi ñoo gis ci moom loolu yàlla jox ko ko. muy buntam Ibrahima yal na yàlla may la fan wu gudd yal yàlla defal la tawfiix ñoo ngi amoon mbégte nag ci sa temps bii nga ñu xajal saa su nekk ñu déplacé suñu jotaay bu réy bii di euh, gëstu alxuraan gëstu njàngu mag ñi waaye ñëw la fekk ñëw fekk nga jàpp nga yaatul la nu ko sant nañ ci baax gërëm nañ ci ñu ngi sant sunu caméraman bu baax bii ñu àndal Alaji Kan di ko ñaanal tawfiix ak jàmm mbokk yi fii la ñuy jotaay bi xam naa nag tàggoo bu du tàggatoo rek lay doon incha allahu rabbi ba ci yeneen jamono bu neex yàlla sunu borom bu leen fàtte ne cheikh bi mi ngi waajal yoonu Mauritanie incha allahu rabbi kon waa Mauritanie na ngeen ñu xaar ci kàttanu yàlla incha allah sëñ bi xam naa ci yeneen jotaay dana ci indi ay leeral wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërë ngeen jëf